fexe ba fépp fu ñuy jaayee xar ci biir Sénégal waaye fépp foo xamante ni am na soxla yoo xam ni askan bi am na ko fa ci waajtaayu tabaski bi ñu fexe ba kaaraange mat fa sëkk loolu nag euh, sant nañ ci yàlla ndax bi ñu demee fële ci daral Pikine Dalifort biñ fa yeggee ci Seras président wu teefanke yi moo ko waxal boppam muy du Talla Euh, ki ko feelu ci wax ji mooy euh, représentant wu malien yi suñu mbokku malien yi nga xam ni chaque année dañuy indi ay xar yu bëri ci biir réew mi ñoom ñëpp leeral nañ ni mbiru kaaraange doy na sëkk ci fépp foo xamante ni ñoom gis nañ ni ñu ngi fay jaayee ay xar